بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله جناب نسانتي سنو بروم بمقبي سبحانه وتعالى دي جولي كي سنو يننتي بتدب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي ديلو سانتات سنو سرين بمقبا سرين توبا شيخ أحمد بن بخادم رسول رضي الله عنه نيونغي لن دي نيوتا دي لن زيارة بباخ دي فاسيني ديلو سواتا غل يين دي لن ليرال suñu garab gu am solo gi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu fàggul leen ko ñu koy wax garabu kër gi di garab goo xam ne li muy faj bokk na ci góor goo xam ne dafa néew kàttan góor goo xam ne day gaaw a am li mu bëgg maanaam góor goo xam ne day gaaw a jot boppam koo xam ne xëy na na mu war a dëgg dëgg dëgg dafa des garab gi nag li ci gën a am solo mooy soo jëlee traitement complet bi nga xam ne moom la ñuy joxeendoo benn yoon mën na laa faj ba nga wér définitivement ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala garab gi nag ñi ngi ko liggéeyee gàncax gi nga xam ne suñu borom moo nu ko fàggul moo ñaale ko alquraanul karim ca lañ ko war a ca lañ ko ca war a moo ñaaleel mu nekk garab goo xam amul benn effet secondaire amul benn conséquence bu ci nekk ki am jabet mën na koo jël ki am leneen ak leneen mën na koo jël ki ki ay atam sori lool tam mën na koo jël dana renforcer dana dolli kàttan waaye ku demoon ba too itam boo ko jëlee mën na laa faj ba nga wér ba am li nga amoon incha allahu taala du ñu garantil nit nag ne la buñ la fajee ba nga wër gar maanaam feebar boobu du dellu siwaat ci yow maanaam mën nañ la jox suñu garab wax na la wax ne la boo ko jëlee mën na laa faj ba nga wër waaye ginnaaw bu mu la fajee ba nga wër nag mënuñu laa wax ne la garab gi kat dalay garantil sa dund ba loolu dootul dootula la dikkalaat ndax yaakaar naa ne amul benn médecin boo xam ne sax mën naa faj nit ba mu wër mu ne ko feebar bi dootu la dalaat sa àdduna di cee am ci ñenn ñi ci clients yi ñoo xam ne buñ lay woo dañ naan la garab gi mais boo fajoo bu wér moom dootu la dalaat loolu yaakaar naa ne boo xalaatee tuuti rek di nga xam ne euh, ab docteur sax mënu la koo garantil su ko defee képp koo xam ne yàlla dafa dogal nga yittewoo ko te nekk ci biir réew mi wala bitim réew fexeel ba woonu ci 77 335 14 14 incha allahu taala fépp foo mën a nekk di nga ko mën a jot ñu ngi leen di sant te di leen gërëm. di wax ne it képp koo xam ne mbirum listixaar moo la yitteel nga bëgg xam sa biddiw bëgg xam sa tabian bëgg xam say sarax wala say gàllankoor soo wootee dina jàppandi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah